ma fi maire Thiès xam naa ne ñu mel ci ni balaa may dem fenn di ko décentraliser en 2019 ñëwoon nañ ci daaw mu xaw a mel nii ñu ñëw ren mu mel ni xam naa ni déwén dañuy toj prestige bi daal di koy pousse ba ci ginnaaw ndax nit ñi duñ fi xaj ma bëgg waa Thiès ngeen tàccuwaat seen bopp bu baax a baax a baax a baax a baax a baax merci beaucoup initiative bi nii rek moo tax ñu def ko dañ ko daan gis en Europe di ko gis aux États-Unis partout dans le monde koy def Ibrahima Mbaye Sopé du weddi li may wax donc ñu ne pourquoi pas fii euh, Sénégal c' est un la culture euh, surtout Thiès c' est une région boo xam ne xam nañ ni mu mel ci culture donc euh, lii dafay baax ñu koy def tey jii suñu génn ñun ñëpp Sénégal dem restaurant la wala dem baal amuñu ay genre yu mel nii te lii dafa baax day dundal xol lii rek la papa mën a ànd ak yaay ak doom ñu ñëw toog reetaan loole papa yaay bu ñu ànd boole ak doom. kon ñu gis ko yu kompati ko fi mais c'est très normal merci beaucoup à la résidence d'acteur nga xam ne tey jii ñoo ñu recevoir ñun ñëpp daal ñuy héberger ñu nekk fa nekkin mu rafet a rafet mu nekk kër goo xam ne mu ngi ci Thiès ay jeunes nekk ci di ci def liggéey bu solo mais merci a fi ga xam ni boîte bi fi ñu nekk Baye maa ngi lay kontaanee Baye bu baax la Baye Serigne tàccu leen ma Baye Serigne bu baax a baax a baax. et vraiment ñun euh, dañoo soxla une jeunesse bu mel nii boo xam ni dañuy am ay ambition di investir ci li nga xam moom mooy seen dëkk sant prestige boo xoolee tey mu mel nga xam ni ki fi nekk mu ngi koy liggéey bu am solo léegi yëf yi day commencé à TFM kon mënu ngeen a ñëw dama ni li nekk ci ginnaaw ne bu ñu ay médecins. patients a leen woo vagues yi nga xam ni moom la ñu def c'est des médicaments on sait ngeen bëgg ko wala ngeen bañ ko que vous êtes malade ndax da ngeen a soxla ay reetaan parce que gis nga xol li koy dundal bokkul ak liy dundal biir xol reetaan bu la dàq reetaan gën la am jàmm wala gën a gudd fan kuy mer day gaaw a dee te dama yaakaar da ngeen ñëw fii pour ñu reetaan ah Pago sama xarit la Pago moom euh, moom toll comme ñun waaw moom moo ñu xaw a ëpp tuuti waaw Pago parce que euh, maa ngi bëgg a commencé te xam naa ne moom seen tànk donc xaaral ma yi euh, ñu ñëw équipe bi nga xam ne ñoo war a yëg ci concert bi euh, dèjà dafa xam ni daf ñu gunge ci li nga xam ni moom mooy événement bu toll nii ci biir nekk un couturier bu mag a xam ne ma nga foofu ca Touba daal di ci jàpp Mourtala Saliou ah, nga xam ni mooy sentiment couture sama gars ñi nañu yegg si ngeen xool li nga xam ni moom la ñu Moustapha euh, Mourtala ñaawal équipe bu Abba Show bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. woon Moustapha Saliou moo def ni xale yi def tey soloon équipe bu Abasio bi yëpp yëpp yëpp te du yem fii dinañu gunge bu baax a baax a baax merci beaucoup sama gars ñi waaj leen seen bopp xam ni les choses sérieuses vont commencer léegi léegi nii général Kairé su doon maa yow damay jaar oto léegi dem ñibbi wala nga dem ci hôtel ba tëdd doo joué du joué tey il faut ngeen respecter genre nit ñi. parce que boo xamul ñu mel nii mën nga leen bañ a respecté man yëmbal laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee dafa amoon suñu benn waa classe bu ñu doon woowee nit ñi waaw histoire la bu triste boo xam ne peut-être mën ngeen a commencé reetaan mais su ma nekkee ci biir histoire bu ngeen reetaan ñu ngi nit la woon koo xam ni genre bi ñu nekk xale ñun. joo joo bi ñu passé ñu dem

ni classe bi demee yëpp ñoom ñi fa nekk xam nañ ñi man xaw ma njëkk déjà bi may def seen deux man maa ngi amoon ay xaw ma ñaata ay treize ans quatorze ans ñi ngi boobu am na trente cinq ans déjà. wàññi ko waaye maa wàññi ñi ngi loolu garaawul trente cinq ans yi garaawul ci élève buy def seen ma ñëw comme maa responsable location maa war a bind non de papa ma bind teg sama biir teg sama fooy di bind non de maa ñu ngi nekk ca ginnaaw ak ginnaaw di ambiance ci classe bi mais gisaguma ñëng ma bind ñëng ki wax loolu kan la ñu ne ma ñëng la ma bind ko ñëng wax voix wu ñëng ma effacé ñëng. ñi ngi defaat ambiance ma bindaan ñi ngi ñi ngi jug doxantu ba ci man tiim ma gisatuma classe ma effacé waat ñi ngi ndeke dafa mere ñi ngi doon wut yoon bu mu ko dóoree ñëw fekk ma bind ñi ngi cinq baare ko cinq fois monsieur bi maire li ñu bind ñi ngi yëpp ak liñ ko baare da koy doon problème bi du foofu de ndeke man sama bopp dem dafa laa noonu suñu bësee moo teg ñing siis a ngi nii ñing a ngi nii borom bi ne ko sëggal mu sëgg musa bi nekk ci ginnaawam di dóor maa ngi nii maay responsable de classe bi ci kanam laay toog maa ngi nii toog ñing du jooy de danaan si ngi xool ma man maay jooy bi dóoraan du du ngi si ko xool ma daan eh, may gën a jooy ñu wàcc di ñibbi on était cinq ci quatre koñ la sama yeneen waa classe yi ci cinquième koñ bi moo nekkoon suñu koñ ñun. première koñ suñu benn waa classe ñibbi deuxième bi keneen ki dugg troisième bi keneen ki dugg quatrième bi nekk ñi nga may xaar ci cinquième bi quelle catastrophe ma yegg fekk ñi ngi ci koñ bi ñi taxaw. ma ñëw rek ma ne ma jiix ne ma kii ne ma kii bi ma ne ko yàlla dogal na loolu. munoo waa léegi doo may wax ma ne ko ñi nga baal ma ne ko day yokk ma ne ko ak kon boobu. ñi ngi jàpp ma commencé maa wuti di ma xëcc ci biir koñ bi ma ne ko jàpp ci boppam mu ne may ma ne ko rayee ma fi nit ñi di ma gis. am fi may denc ñi ngi gaañ ma ba ma gaañ ma ñibbi guddi yëpp mu ne maa nelaw mais ma xëy suba il faut ma jàngi. demaat Irak même li ma yoroon les responsabilités nekk responsable de la gëm ko. noonu ba maa jot may bindaal ñu ngi ci ginnaaw ba tey di ambiance ay ñi ma ñàkk xam xanaa xam ngeen lu waaye lu ma xas xam ba noppi ñu ngi di ambiance waa classe bi naa ma ndax doo bind ñi nga may leen big ngi nii ci table bi tey yéen mën ngeen a bind kaa nga bind ko ñi nekk di fecc di way ma ko ñing mu ne ma waaw ma ko ñing mu ne ma waaw ma ko mu ne ma ma ne ko ñaata yoon laa la mu ne ma ñetti yoon ma ne ko wool waa Ramadaan Ramadaan ngeen gisee ba xam dinaa la bindee ay ca show bi dafay bëgg a commencé show nii lay commencé ma bëgg ngeen di xool xale yi kenn par kenn xale bi nga xam ni moom mooy njëkk a fii xale ñaari tali la xale bi nga xam ni mooy njëkk ñëw fii xale benn tali la xale Grand Dakar la xale bii xale la boo xam ni yëngal na fi nga xam ni foofu la dëkk waaye xale bii du kenn ku dul am bi tàccu leen am bi bu baax a baax a baax a baax pourtant lii yoon moom micro bi war na nekk ci prochain bi kii bu wàccee ah kii bu wàccee moo war a yóbbu micro am ci prochain bi. yoon bii war naa dégg sama tur man maay borom oh my god ñu naan ma moor yéene jóob ma jóob mbàgg ma daal ma ragal sama maam sama maam rek doxee dee dajee kay nag di kalanteeg moom naan ko nee ma jóob ak ñaawaay nee ma jóob bëgg jëm noonu la def ba dëkk ana jaayee bi loolu la siy waaye ñoom it yëkkati leen seen loxo waaw kay yéen waa bis bi kontaan naa ngeen bu baax defe naa nag lii war ko ma ko jaay di si màgg ci man di ma ko laaj ku ma nga naan ma lii moom mu tudd wala mu utal ko tudd ñii nga naan raay mu set ñii na neex man ñoom ñu jëm si wàññi ko ñu ko biir baax. biir baax la boo xamante ne nii biir baax lépp lay faj. bing bang nee naa la day faj tànk bu damm loxo bu gudd loxo bu rëq nopp yu gudd tuñ yu ngande bëñ yu gudd karaw gu taw a sax wakkatu gu metti ŋaas ŋaas ŋoos ŋoos bing da koy faj gémmiñ gu xeeñ sax bing bang da koy faj waaw ankay nee naa la bing bi mu ko defaree ba noppi États-Unis laa njëkk dem di ko essayé waaw dama ne cëpp États-Unis deux heures de temps mu jeex ma del si waat Sénégal defaraat ne waat cëpp trois heures de temps mu jeex bi ma del si waatee vingt quatre heures laa def ñoom coom ci seen bopp ñoom ñoom a dab ma ñëw taxaw ñu ne ma how are you man leen xaay ñu ne ma your which is being bang from man leen is good ma génn États-Unis dugg biir France France dama ne cëpp deux jours laa fa def ñoom seen société yi tëj benn hôpital liggéeyatul ndax kenn dammatul kenn rëqatul kenn faxatul gémmiñ keenatul kenn wokkutootul ministre de la santé woo ma ma ñëw ma toog mu ne ma bonjour ma ne ko oui bonjour mu ne ma touché commence à perdre notre économie c'est à cause de cette digne banque là ma ne ko ok je désolé monsieur ma jël samay bagage dugg Chine oui dama ne jëpp laa fa am chinois yi commencé maa piraté ma jël samay bagage ne damay ñibbi ndax roy du nuroog piir ñu dab ma chinois bi dañu cëpp sama kanam ne ma mi xaaw ma ne ko mi xaaw mu ne ma xaa ci woon ma ah. bi ma génnee Chine ma dugg Afrique ñëw ba Égypte damaa egg bi ma nee cëpp Égypte naar yi commencé ma yaakaar ne ay bomb lañ may dóor mais naar bu ko ci laal da ngay del waat ñëw jël ma dem bay ñibbi benn naar egg si taxaw ne jadd sama kanam ak si kim bu gudd bi نعم ولكن لا يصلحون الدين بل فيصلحان من يقول لماذا لا يدخل الدين بل والسنغال bing bang mooy def loolu waaw ma ne nag bay ci sa weewu tànk li may dimbalee ñeneen ñi naa ñëw sama réew ma dimbale leen damaa jóge Égypte bi ma nee cëpp aéroport Diass ma jël oto bi ma ñëw ba Padoua ma dégg tell oh my god catastrophe ndeke stade la bi ma duggee ci biir stade bi gis ñii sëngéem ñii di jooy ñii di yuuxu ndeke jeu bi dafa am double fracture yax bi dafa damm ba tibia bi ba tubaa bi génn joxoñ médecin bi daw ñëw tin ko bi mu ñëwee daan ni oh y a pas de solution ma ne ko si si y a solution avec Bing Bang tout est possible way mu ne ma ayca ma génnee potu Bing Bang dama ko raay ci yax bi yax bi nooy ma delloowaat ko fi mu nekkoon takkalaatal ko tibiyaa bi solal ko baa bi solalaatal ko godaas bi yëkkati ko ne ko tu vas marquer boobu moo dugal bi bi keroog à la quatre-vingt-dixième minute bing bang moo def loolu waaye j'ai des témoins ici sa waay bu la neexee nga laal man li may wax day am toujours ay ku sa bopp di mettre rek laalal laalal nga jox ki ci des laalante leen mu jàll na del si nag ah. waaw ñu yaakaar ne Big Bang foofu lay yam bi ma génnee ci stade bi ma ñëw hippodrome Tanor Anta Mbaxat di seetaan course grand prix chef de defe naa dégg ngeen ko fas bu ñuy wax pende yéeri jockey bu tudd Pape Ndiaye moo ko waroon fas bi biñ ko dàqee fas bi dafa bañ dafa mal départ ñëpp a départ dem bàyyi ko fi bi ko jockey bi dóoree fas bi da koo wongeeku waa ji bi mu daanoo ndigg li moo rax rax nag du rëq du damm waaye ndigg lu jël forme huit la forme w ñëpp di jooy naan fas bi dootul daw médecin bi ñëw tim ko daan na y a pas de solution ma ne ko si si y a solution avec Big Bang possible ma wàcc génnee Big Bang bi ma ko raayee ci yax bi yax bi dafa nooy ma yëkkati ndigg li mu taxaw ma takkal ko morceau yëkkati joke bi aj ko ci kaw fas bi bi ma dàqee fas bi fas bi bañ ma jëlaat Big bi raa ko ci bakkanu fas bi fas bi keroog dafa départ moo jël pee mooy def loolu waaye nee naa l Big Bang gën a doy waar tuuti tuuti noonu la efficace da ngay ràmb sa poos fekk fa 10 000 rombal nga fekk fa 5000 rombal nga fekk fa 2000 rombal nga fekk fa 1000 francs rombal nga fekk fa téeméer bu romb xamal ne maay borom bi nga ba ngi noonu bu la rombee dootoo ko am de. sawaay yow boobu ba léegi yéen a ngi laal te del seegul de ah waaw kay waaye nag defe naa man xam naa arrêt bii di ñëw foofu laa leen di tàggoo rek ma tàggu leen tatagal leen ngeen tàgg fu ngeen dem di tag tagi kon sant naa leen gërëm naa leen ba beneen yoon bu ngeen rombatee jas wala puut seen xel dem ci man ma jox leen bing bang jërë ngeen jëf Amni. Doxal ma ay député merci beaucoup. ay député doxal ma waa ngeen luy sonn ci biir bànq bi. loolu léegi bu wërëkk a mu bi woo Big Bang. mais Big Bang li ma wax ba wax Fass sama xel yu sori. gars yi ñun ñëpp xamante nañ yéen respecté leen suñu liggéey bii kenn doon nekk si lu mel ne tool yi s'il vous plaît. dawal kat Fass ñoom bopp sama habitant dafa gaañu day dawal fas ba yàgg rek mu gaañ ci fas bi kon ñëpp tiit ñiy jooy yóbbu autopsie médecin yi gisuñu li ko rey autopsie am na benn pas médecin mooy pas yooyu nga xam dañuy liggéey ba arrêté liggéey mais dañuy ubbi seen kër am cabinet di liggéey seen kër ñi def médecine yu yàgg yooyu ñu indil ko ko ne ko papa mu ne waaw ñu ne ko kii suñu xarit la dawal ko fas la dafa jékki-jékki rek gaañ du bëgg xam lan moo ko rey paa bi dugg ak moom ci nekk une heure deux heures de temps heures seet ko seetaat ko opéré ko xotti xool ñii génn ñëw fekk ñu toog mu laaj ñaq bi xepp ana ñuy indi néew bi ñu ne ko ñu ngi nii wax ñu ko woon ne ni kii dawal fas de moo ñu ko laaj xam nga kii dawal ko fas la woon ñu ne ko papa waaw ma ne ah c'est normal kii ni ko rey pour mu daloon ci yéen ngay gaañ ñu ne ko papa lan moo ko rey mu ne lii moo ñëw eh eh day am eh day am est-ce que est-ce que ah, day am day am day am day am li war a jeex ci yow bu jeexee rek nga gaañu day am day am mais ñun. fas ñun dafa bokk ci ñun ñun ay banlieusards la fas yi dafa am boo xam ne bu ñu liggéeyee ba wàcc dañ leen fay gaare fas yi dafa am fu ñu leen di gaare foofu la fas yi di nekk foofu la ñuy fanaan mais suñu koñ tamit dafa bëri ay grand nante grand nante mooy grand yi tuux lu dul cigarette grand nante am na fi Thiès am na ay grand nante ah booy grand yi ñu jëm waaw naan ñu ay bopp neen xar la dañ koy yàq booy bopp dañ koy yàq yàmbaar la grand bi tux mu toog ne ko naa mu jox ko benn booy bi ne ko ok wiiri fi ñu takk fas neefere xam nga bu woowee ci dugub géeg yooyu xam nga mu jël neefere yi laxas ko ci këyit bu weex ñëw jox ko grand bi bu siir laa lay wax ne bu siir grand bi ubbi neefere yi yow jël résident bi teg daal di koy ko wax nii parce que nekk na neefere la lépp wuti siège yi mu nekk lu set bu li naan xoolaat doon bi wala kee loo ci gën a naan fis bi birit yi teg ne raab raab bu mool xëcc xëcc bu siig yooyu xëcc ay humide yooyu dafa sànni rek ne. <laughs> eh tàcc xale bi ñu bëgg a ñëw. eh. eh. eh. eh. xale bi ñu bëgg a ñëw. xale bi ñu bëgg a ñëw. liberté la dëkk. xale bi ñu bëgg a ñëw. c'est un boo xam ni. ay origine am du fi. mais xale bi fekk na la bokk ci ñun rek.

yàlla dafa def man damaa ragaloon xale bu jigéen bi ma nekkaloon moo tax mu gaañ ma xale bu jigéen bi man ak moom génn nañ plus de deux ans ak lu teg mu xëy un oh, bonjour envoyé ma message yu ñaar dërëm yow ne ma ñu bàyyante waaw mu envoyé ma message yu ñaar dërëm ne ma ñu bàyyante man ak moom bi ma koy envoyé man ak sama yaay ñoo toog maire bi mu ngi tànn ceeb yow di ma koy waxtaanloo muy ree ma jël sama téléphone di liir message bi sama rongoñ yi di tuuru maire bi ne ma lan la mbaa jàmm xanaa dëj la ak yooyu ma ne ko non maire sama copine moo may jàngal nu ñuy toggee yaasa. maire bi ne ma waa jàngal nu ñuy toggee yaasa dafa jar jooy ma ne ko maire comprendre dama damaa toll fu ñuy dagatee soble gi moo tax sama bët jooy. bu jigéen boobu daf maa def lu ma métti sama adduna comme damaa fidaloon ak moom ma ne kon garaawul comme moo ma bàyyi naa wuti keneen man du ma gën a gore yàlla def ma gis benn xale bu jigéen boo xamante ne yàlla yàgg yàgg naa koo teg bët ñu tase man ak moom ma ne woote yàlla dem bu nit ma ñëw di ko wax sama doléance na ko wax dëgg na yàlla fu mu nekk nii toll naa fu mu war a taqee soxna ak yooyu te su ma sañoon man ak yow ñu gën a miinante nga xamante ne ni dinañ mën a paree gu ma lu may wax mu romb ma yow ne ma boo paree nga dem ma wala nga envoyé message. ma ne ko ak ah, a ñàkk man xëy na su ma dërul woon ma wax ak moom waaye nag wax dëgg neex yàlla nañu waxante dëgg. Sénégal am na ay jigéen yoo xam ne comme urub ay ni jigéen yi tàccu leen seen bopp waaye waaye tàccu leen seen bopp waaye te yëg ko waaw waaw rawatina Ceeskaay wallaay xale bu jigéen bi maa ko gis képp ku ko gis ci ñun da koy bëgg yaa xam comme xarit yaa xam comme gel yaa xam comme jabar ku ko gis bëgg ko xees na njool na ma ne man tamit comme xees naa njool naa jantal naa war naa mën a tenter sama chance xale bu jigéen bi taxaw na may wax ak moom mu may xool bi ma déglu attentivement maanaam sama xel kii war na maa mën a muñal ndax donte dër naa moom may déglu man ne kii laa doon wër waaye maa wax ak moom ba pare xale bu jigéen bi xool ma ci kaw ba ci suuf jële ma ci suuf ba ci kaw ne ma yow xam nga sa bopp ma tiit ba ne ko déedéet mu roog ma dem ma nekk sama yaay fekk mère bi toog ma ne ko mère mu ne ma man ma ne ko man la kan sama yaay ne ma luy loolu ma ne ko noo xaw ma sama bopp damaa bëgg nga ma la sama yaay jàpp bopp yow ne sama doom ji dox na mais du dox ki question la rek te tamit beneen affaire bi mu leen di wax mooy Youssou Ndour way gi mu woyoon ne nga la wax ko boo ko waxulee ba mu dem gis keneen nga yendoo misère maa ko dund waaw xale jigéen bii man man man bëgg naa dem ci moom moom it bëgg na ñëw ci man ñuy xaarante yàlla def ma voyager ñibbisi teg sama saag rek jubal këram yam dama ñëw ba buntu këram moom muy génn nag waaye sa laa doon ñëw ma ne ko man ñëw naa mu ne ma fan yii yëpp man lay woo jotuma la ma ne ko waa damaa voyagé woon mu ne ma yaa ngi xeeñ lu neex ma ne ko fa laa ko jëndee xam naa wax ji ko mu ne ma waaw damay ñëw sa kër dama la doon waaj a wax ni que ni dañ may takk gannaaw suba damaa ko nga nekk garçon d'honneur keroog laa tiit ba ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma jël décision xam ni que ni carrément man ay tuxaan yi du sama yëf du sama yëf man naa bàyyi waaye bi ma ñëwee sama koñ ay deux semaines yooyu ma remarqué ni am nañu benn tuxu si bees xale bu jigéen bi tool na nu ko neex macha allah jongo ma nag non jongo ma sax day tuuti mën naa wax dëx dëx xam ngeen dëx hmm. ku baax kaay kaay baal ma ñëwal ñëwal soxna si baal ma nga ñëwaale dimbali ma rek ngeen ñëw kaay leen kaay tàccu leen ñu ñëw seen moom leen soxla tàccu leen bu baax sa taxawal ni yaa booy baal ma rek nga taxaw nii taarikàlla merci après def leen nii def leen nii rek nii nii nii gars yi def leen nii xoola xoola xool sama dafa rek dafa rek xoola xale bu jigéen bi nii la toll yow allez merci dama la ñu war a merci merci merci jërëjëf. xale bu nii la toll nii macha allah ni kenn mësul ñëw këram di ko seet si yow kenn mësul gaare oto ñëw di dugg di génn ma man kii war naa ko mën a may chance lu may ñàkk wërsëg yëpp kii war naa ko mën a may chance man. waaye maa ñëw biir këram mu entraîné ma ci salle bi ma toog. xam naa ne ay góor yàlla yu bari duñ ñeme toog ci ci loolu ma toog ne ko wax dëgg neex yàlla gis naa ni yow bi nga ñëwee ci koñ bi yàggul te man damaa toll fu ma war a tëdd ay soxna te su ma sañoon pare gu ma li may wax rek mu ne ma ee eh. ma ne ko ah mu ne ma xanaa xamoo kudd bu mag mooy yëngal ci nu dëxin ma ne waaye bu ndaw a koy lekk ah ma ne ko bu ndaw a koy lekk mu gis ni que ni ni may waxee moom xam naa mu dérangé ko mu jug ak ak ak ak ak kii yam dëxawaayam mu jug yow rek tàccu ma na ma yow ah da ngay jaay ay bu ndaw waa léegi ñëw lekk yow doo di di wax di wax ma ne ko eh suur naa cere dëkkin suur naa mag lu ko rey naa merci beaucoup Mamadou Wadianga booy bi moom pël Fuuta la moom pël la. pël comédien loolu raar na de pël li ma ci xamoon man man pël li ma koy xam li ma ci xamoon mooy sàmm ak di ñaanalaate. pël yi dañoo mën a ñaanalaate ak di sàmm ak jaay soow pël bi ma gën a miin xam ko dafa defaroon ay téere tul tul di ko jaay naan téere ay tul la xam nga Sénégal. ñu ñu ñëpp war a tuul da ngay romb rek doo def dara ñu agressé la déedéet jéem émotion boobu jàppal li pël bi wax lii la salaamaaleykum ñu ko ma ne nopp ak diraabe Odo Zamiro na ngeen def man ko jaay eh, téere tur téere yi émotion boobu jàppal bi lu tax mu teg téere yi rek mu jeex mu ne moom ñi jënd téere yi duñ ko gën a góore faaw mu def spectacle wan leen ni téere yi muy jaay téere yu baax la takkoon na ci benn boo xam ne mu ngi fii mu takk moom pël bi ne mbooloo mi hey bandiraab bu kenn dem de hey takkaw leen ngeen jeew jeew leen suma labbi nañu xool paaka bi jeew leen suma labbe bandiraab man duma arnaqueur de kool leen ñu koy xool mu naan kool leen ñu koy xool kool leen ñu koy xool pël bi tàng bi mu naan xool leen ñu koy xool dagg na ba dagg téere tur bi mu takkoon mais li gaañ pël bi mooy bi mu daggee téere bi bu nattu dee ñëw day ñëw da koo dagg rek daal di enchaîner ndake paaka bi jaar na ci baat bi yow pël bay wax de sans cette bi taxaw ñu ne tekk naan eh no bandiraaɓe gars yi ne tekk di ko déglu no banndiraaɓe mimaayde nena mo liggey mimaayde e eh, loolo ray ponmi ponmi loolo ko ray e eh, dañuy spectacle soirée lañ koy def amul soroxo soroxo amul yàkkamti ñu toog waxtaanee ko seen xol bi fiix nante yaa fii toog nante gu ëpp wóorul waa ji rastaman la dekk ndandite naan kenn mënu ko sàcc comme gis ñu sàcc la waa ji la xas mooy yow défaillant nga quoi yambar nga waruñu laa sàcc kuy xalaat waruñu koo sàcc quoi waruñu mën a ne sàcc yaa ngi mer di artu waa ji sàcc yaa ngi artu waa ji waa ji ma ne la sa waay yow ngaaka nga waaye luñ la mën a sàccee waa ji sàcc yi topp ko ay rasta def ñu bàyyi ko ba muy nelaw ñu yeetal ko mu jël bagaasam yëpp dugal ko ci suufu njegenaay bi rocc nan njegenaay bi jël portable ba jël kalpe bi lam dencoon yëpp ñu jël ko sàcc bi di dem ne kii daa bari wax bu ma demee nii day yomb xaaral ma wat ko waajee ngi nelaw sàcc bi wat ko ba mu seet wii waaji yeewu premier réflexe bi waaj def mooy dafa làmb ay kiiwam gisul dara nante la mu ree mais bi muy ree dafa jug bi muy dox dafa romb seetu mu doxee ba ci seetu bi xool ñu wat mu ne ah nii la mën a demee ci du man loolu la ci du man tàccu leen beneen booy booy bii il est de la ville booy bii biir Ndakaaru la dëkk biir plateau la booy bi dëkk booy bi du ngaaka moom nante la booy bii il est mignon mais il il n'a que 18 ans bii moom mooy nee leen moo xew ci jamono fu mu dem def fa bës urak cagi jaragi jaragi cagi jaragi jaragi oh yow bu neexee da ngay daas so waa côté bi kaay leen ñu daas eh ay waay yow da ngay daas so ci digg bi ñun daanuy daas so taas ba ura daxin ba so waaw waaw asalaamaaleykum dama ne tey fii dana mel ne Keteme barke yonent bi dana mel ne màggalu Popenguine nga nga xam ne dana bari mbaam xuux bari xaaxoox yi laay laay li laa nee naa leen man la si ngom daaj ji nga xale bonbon sina bi maa rajo Soto fii la jël antenne ba damm ko rok rajo ba ne ko karaj barke yonent bi toogaa yi jekk na maa ngi siyaar kilifa yi ñi fi toog laaj leen ma numa ko tuddee da ngeen ma naan si ngom ko tuddee eh laaj leen mënoo ko tuddee eh laaj leen mënoo ko tuddee eh bonbon zina laa ko tuddee ndax kona amina ak buna ci yéen la nu jàngee fu naa naa xanaa ndax bëri maana xoolal kii non non mais am na loo xam ne rafetul soxna si yow wàcceel wàcceel sa loxo bi déjà ba pare pour ma mën a wax ak yow wàcceel sa loxo bi rek barki dem boo njaay lu mel noonu ma dal benn dëkk bu ñu naan fete man fu ma dem damay tere snap xale yu jigéen ñi mais simple luñ munuñ koo bàyyi fete laa taxaw xale bu jigéen baa ngi fees neex xam nga mel na war a mel mel ni naaj ma ñëw gis ko man damaa bëgg jigéen ñëw ne ko soxna si na def ça va xam nga màcc tuñ mu ne ma ça va alhamdulilah yaa ngi ci jàmm waa maa ngi ci jàmm noo tudd man Fatima Fall laa tudd ma ne ko man la diw doomu diw ak diw commencé tagg sama bopp naan ko noo man xaw ma dëkk bi nag mais dama bëgg ñu takkante xarit comme ça waa kon barki yenent bi xam nga rek ay waay waay micro bi tamit li muy def ni on on progresse soxna si ñu ah, si kaw sama loxo yam pour tëntaan yaa ngi woon ci Fatima Fall waaw sama loxo yëpp tëntaan ngeen jéggal ma Fatima Fall fi ma ko naan dama bëgg ñu takkante xarit ok am sorry fi ma ko naan dama bëgg ñu takkante xarit noonu la Papa di rombee ndeysaan xam nga ñoom simple nu muy wane boppam waa Papa di ko feeñ Papa fu la Papa ndekete xale bu jigéen bi ay njañ la def du ci bopp bi de yii la njañ leen ci yàlla yonent bi ku ngeen yaakaar ngeen dimbali ma di wat seen poqataan ay waay waay nee leen wat seen poqataan waa poqataan dañ koy libéré ay voisin la dëkkandoo la dëkkandoo jàmm ca gën ñaan leen jàmm ak ku dëkkandoo day lore Mamadou ah d'accord d'accord non déedéet man ku nekk am na droit wax li ko met parce que rasoir ñaar fukk lay jar te léegi dañ koo gën a yombal dañ peese 15 nga am ko fukki dërëm Petersen 15 rasoir fukki dërëm dee leen wattu Mamadou Mbodja leen dàq yar karaw mais moom day dindi ay voisin am bopp bi rek lay yar. Mamadou Mbodj moo dàqoon watu ndel noo no stress à l'époque mais jamono yi ñu toll moo dàq yar karaw Waly Seck te dinaa leen nettali benn histoire ci bi muy watu ndel Mbodj sàcc la woon de profession Mbodj dafa bëgg sàcc miin sàcc xam sàcc ba pare fonk sàcc sàcc professionnel la bés ñëw je me rappelle très bien du ma ko fàtte mu dugg ko Doudou Ndiaye Rose di wër lu muy sàcc naan kenn di yoot kenn tem di xool kenn tem am benn jarbaatu du njaarog bu génnoon doon jënd cere meew naka la ko mbooj gis rek daw fi ñuy denc sabari mu boobu laa xam ne ndel baaxul li ndel di bon bon bon karité ko gën a bon moo ko feeñu ba jarbaatu du njaarog bi gisee luy biree dafa ne laay laay li laa waa paa bi kañ la fortune bu bees te yëguma ko lii bala koo benn booy lii bala koo benn booy yóbbu programme yi di ko yàq maa koy njëkk a ñam dem génne galañam boo xam ne dencoon na ko di sept doon xaar bés bu rafet ñëw ci ndalu Mamadou Mbodj bi waaye am na sàcc yu dégg barki sëñ Bamba te min li ñuy def danaan lu lu lu booy bi tëgg Mbodj génne ko ci gimmiñ nii la mbir mi demee takkul ko ku sa jàppax du ko dus ne ko takkul ko ku sa jàppax du ko mu ne ko ratal xedda uratal xedda ura xel xeke sanda mu ne ko ratal xedda uratal xedda ura xel xeke sanda mu ne ko tararararara mu ne ko tararararara cakin waaye foofu bopp baa ngi neewi ay bantu bopp dafa met booy bi dóor defe ne pegg yee génn defar ba mu defar waaye foofu yaram bi tàng na nii ma doon ñaqee nu ko raw doon ñaqee dugal ñaari gorom ya ci kot géwél bu seen yaram tàngee oh my god mu ne pi ndaw rattar mbattaj pir ndaw raba ndaaj ndaw rattar mbattaj mbooj réer ne ko giis giis mu ne yaa problème ah ah ah d'accord d'accord ba mu saaja galañ bi dooraat même mbàkk gën koo raayal nepi ndawra tarmbatak pirndak ɓil ndawra banda ndawra tarmbatak mojinelti ne ko gis gis mu ne ah bala ma fee jommi xaaral ma tàggu mbaar te tëj tëgg mi te dem ne taas mbaq gin ree moo ne ko pokk toj na booy bi dafa tiit ba dof waaye li ma ci metti mooy géwél bu dof ndekete moo gën a naqaree dëkkal ci àddina abaa yaa dama laa bëgg yàlla boo dëkk géwél bu dof buy woy buy buy buy vocal day woy woy buy doxaan jal day way way muy dugg ci duus day way way moom muy seetaan télé day way way bu kër gi amee ngeen teeg ceet ak saraxal dëj nga ne leer doom lu mu ci mën a doon day way way te fii nii may jàkkaarloog yow nii bu jàkkaarloo ak yow jàppee lu dëmm ah danaan baaraam bay dëmm ku ko feccul ku ne samam dëmm la baaraam bay dëmm eh rataxit taxit kita taxitam ratapit tataxit rataxit ta tëj dël xoolal eh bokkata bokkata bokkata bokkata ay bokkata bokkata ay waay ni saxit saxit saxit raa dégin ba taxit ragi sam oh oh merci beaucoup Thiès c'était un bonheur nga ni man damay tëb paa de man damay nekk booy rek un un ma gaañu man paa moom dama koy tëb man damay jéggi paa paa moom du ma ko nekk moom nekkuma paa eh eh booy eh, bi xam nga ma rey yi la nekkoon est ce que xam nga dafa yem nekk moom moo gën a metti loolu mettiwul de nekk ak mbër mu ñu daan nga fanaan moom moom mbër mu daan. yéen loolu moom mos leen a dal waaw man dal na ma man fanaan naa ak mbër mu daanu dix ne da koy yeewu day yeewu dix minutes ne bu yeewu dara oh jaxabal ba ma gaañ mbër mi dix minutes bu ma ruub daaw ma bi ma oh oh oh ma ne ji jeex na de lamb ji jeex na mais dëkk ak bu dox. metti na mais fekke géwél buy sukuraat tamit ah, metti na ba géwél bi nekkoon sunu kon bi muy sukuraat doom yeeg waa kër gi ñëpp tiim ko merci beaucoup madame Diouf et monsieur Makhtar Diouf Sidi Diouf sama xarit bi merci beaucoup résidence la Dior kontaan naa ci yéen de lii ngeen ma defal dinaa ko wax fu ne partout dans le monde TFM dem leen bu subaa ah, filmé ngeen ko sax tey damaa ko résidence majoritaire na mel ni moom rek a fi nekk ci ci at kenn du moom madame Diouf yàlla na sa jàmm baax kat bu mag boobu daal kàlla léegi eh, ah kenn du moom rakk yi yàlla na sa jàmm yàgg Serigne Makhtar laay laay sii sama la léegi géwél bi day sukkuraat paa bi doom yi tiim ko paa bi yuuxu doomi naan ko papa tuddal yàlla mu naan wóor doomi day dem moom mënta wax géwél a ragal dee moom day dem moom ak lu mën di def day dem mais léegi comme tàmm laago la bu ñuy tàmm nañ tàmm lu baax doomi naan ko papa tuddal yàlla papa bi mu accéléré doomi naan papa tuddal yàlla mu naan bi dawra bi tawra doomi naan papa yàlla mu naan njàkk njàkk la deewee day bàkk ba dee paa bi day bàkk di bàkk ba dee xale bi li bëgg a ñëw Secka fii la dëkk juste à côté Mboro la dëkk xale bii di bëgg a ñëw bu leen fàtte nii moo doon wax ki nga xam ne dafa dañ kumpa toppoon néew bi te teewoon ko mbëri sérieux mu ne mu ne mu ne mu ne Secka du Mboro commencé euh, dama bëgg waxtaan ci kanam ñëw pour la ñuy joué ci temps seen a bi moom ci temps la ñuy joué ñu nekk ci biti di xaar dañoo bari ñu rek bu dee dafa am ku gaañu. wàññi naa ci une minute. <laughs> ay ca tax ñu leen seen kàddu baax a baax a baax. waa di wax ni mariasi may si bigi may si bigi maara ajum naara nga des ndoom jaraka dem baaj te lambaaj jëróñi faramaaré man nag du ma tuuti ndax géwal laa ci ndey géwal ci bàyyi sama juróom-ñaar maam nit ñi géwal waaye ndax boo xoolee sénégalais bi daa mën a fen bañ génne ko Sénégal biñ ko génnee Sénégal ñu dem Mauritanie ndeke am na naar bu fa boo xam ne day làkkatu chaque jour ndeke moom it daa mën a fen ñu génne ko Mauritanie biñ leen génnee Sénégalais bi gàddu ay bagaasam naar bi gàddu ay bagaasam ñoom ñaar ñu daje diggante frontière Sénégal Mauritanie ñu toog ci ba jaaxle ci man ce gars ma fekk leen fa ni que qu'est-ce que vous voulez assis ici naar bi ni ma man ay fen moo tax ñu jëlee ma sama kër Sénégal bi ni ma man ay fen moo tax ñu jëlee ma sama kër ma xool leen ñu man la kuy jëkk fen Sénégal naar bi ni ma man man ko fenal ma ne ko naar ni yow looy fen naar ni ma seka ma ne ko waa moom ma yaa xay su man sama papa bi ma jur bu yëkkatee loxoom ndijoor bi day laal asamaan si ma tiit ba ko ëw oh. si ma ne bi loo koy tontu mënu man pare guma pour tontu ko ma ne ko da ngaa tiit mënu ma déedéet ndax mën naa ko poser question ma ne ko waaw mënu ko yow naar sa baay bu laale asamaan du laal lu mel ne genre tissu naar bi naar bi ree naan ko waaw Sénégal ni ko loolu mu laal sama caay papa la si ah dangeen ni jooy Baye Ndiaye Baye Ndiaye benn paala boo xam ne ndeysaan boo ko moom Baye Ndiaye ci jëm boppam jëndal paala si Baye Ndiaye ma bokk ak moom dëkk ca Mboro ma bokk ak moom dëkk ca Mboro ñu bokk benn tool bu ñu nekk man ak moom waaye Baye Ndiaye baykatu dugub la man damay roose supame waaye heure bu xëyee sama kër lay jaar ni ma sakaan nañ dem tool ma ne ko ja cee Baye Ndiaye dégg nga maam ñu ne suba la tam xarit Baye Ndiaye ñëw ñu ànd man ak moom man ma sekaa ma ne ko naa mun ma suba rek ngay sant dugub ji de war naa ci jël lu bari yóbbu ko ndax tam xarit dina nga reer sa waay te ma ne ko waaw benn bés ndeysaan Baye lay di xëy ñun ñaar ñu ànd cool bi ma dem sama tool mu nekk toolam ma nekk sama tool di bay mu nekk toolam jëlub saako def ci dugub ju fees dem Baye Ndiaye pare jëlub morso takk saako dugub bi yéen saako dugub bi ñëw fekk ma may bay mënuma sekaa ma ne ko naam mënuma maa ngi dem ba suba ak jàmm naa rees yi sérieux ma waaw ndeke Baye Ndiaye bi mu demee woon na ginnaaw am na benn gaynde gu rëcce parc an fa mu côté ba mu tëdd fa la Baye jaar sérieux Baye Ndiaye man seka maay bay ba ci yàgg di bay ba ci yàgg dégg bërt bërt bërt bërt bërt sérieux man nag laa ne gies gis gaynde gi topp Baye Ndiaye Baye Ndiaye day daw gaynde gi topp ko Baye Ndiaye di daw gaynde gi topp ko Baye Ndiaye di daw gaynde gi topp man sigaa sama xol bu rafet man a jees allure bi ma yoroon ni xaaral ma topp gaynde gi xool fan lay lay jàppee Baye Ndiaye ak fam koy lekkee ngir bu ma demee dëkk ba seedal ko lu baax sérieux gaynde gi topp Baye Ndiaye man sigaa ma ñëw topp gaynde gi Baye Ndiaye day daw gaynde gi topp ko ma ñëw topp gaynde gi li ma gën a neex ci daw bi mooy lu Baye Ndiaye wax gaynde gi suul ma dikk maasale lu Baye Ndiaye wax ki rek gaynde gi suul ma dikk maasale si gaynde gi mooy daw ba ay bakkanam potassium yéeg mu dee daw mi ndax sonn lancé gaa man ma ñëw përiyee ginnaaw tëb gaynde gi topp Baye Ndiaye Baye Ndiaye day daw di jàdd ma daw di jàdd Baye Ndiaye daw jubal ma daw jubal maa ngi koy yuuxu naa ko Baye Ndiaye gaynde gi di yéen a taxawal man la sa gaa muy daw sàkku dugub bi rek maay topp Baye Ndiaye maay topp Baye Ndiaye Baye Ndiaye di daw ma topp Baye Ndiaye Baye Ndiaye di daw ba kër Baye Ndiaye di seraas ci biir kër gi ne piliel gi ne potum ndox ma ne seraas ci kër gi ne piliel gi ne potum ndox daa topp mu xool ma sérieux ma xool Baye Ndiaye ndeysaan Baye Ndiaye na mu sonne Baye Ndiaye woo doomi teg doomi ak jabar ji teg sàkk dugub bi lépp doon sunguf te Baye Ndiaye bi muy dew sàkk dugub la yen noonu ndeke bi muy dew te solu draat bi moo doon laa sàkk ba wala dugub jépp gars yi merci beaucoup hey hey kaay kaay kaay kaay kaay neen ñi ñëw bu ñu ñëwee micro bi fii la ñuy téye ci kaw. ñii ñëw micro bi fii la ñuy téye ci kaw. ah. ñii ñëw micro bi fii la ñuy téye ci kaw. c'est que bu ngeen xamee ni ñuy téye micro après du fay. pas foofu ci suuf tuuti ci suuf waaw foofu baax léegi nga ni lan moo war a dugg te seen drag te seen drag bi. xanaa bi mu ciy dal. waaw waaw tax te course bi bi. ok moom saako dugub ba wala dugub yëpp. ok ok ok baax na baax na baax na merci beaucoup xam nga. Ndeye Ndiaye merci beaucoup Ndeye Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax te Ndeye Mbengue si benn Ndiaye. merci beaucoup Ablaye Gueye politicien ak Ablaye Gueye homme d'affaires sama xarit yéen tamit maa ngi leen di ziar bu baax a baax sama xarit yi jàpp ngeen ci lu bare bare bare mag leen Diagne madame Diagne merci beaucoup oh euh, sama papa dama doon bëgg mu fekk ah, sama papa euh, dama doon bëgg mu fekk lu mel nii parce que musul ànd ci ma def humour euh, xam naa fi mu tëdd xol ba sedd na waaye parce nit sa doom bu nekkee ci dara gëm ko. ba mën a feesal ay saal tey cosaan bu nu fa xewlee mbedd may ëpp nit ci biir tey Thiès yu ñëw juddoowuñ fi dëkkuwuñ fi Thiès bëgguñu ba defal ñu lii sama papa daan bañ moom comprendre woon ni man laa ci bëggoon sama yaay moom mi comprendre dafa ragaloon sama papa mais dafa bëggoon lu ma neex léegi nag man comme dama bëggoon dama génn man man leen man mënu ma toog parce que li ma bëgg yéen ko ma génn mais lu liggéey dama koy yónnee sama yaay man sama yaay rek laa doon jox sama yaay doon wut lu ma neex rek heure bu ma ko nee yaay allo ci loo nekk mu ne ma ça va ma ne ko yaay mbaa yëpp yàlla ma ne ko yaay sa baab lu def léegi mu ne ma nangu na li ngay def sa papa comprendre lu woon mais léegi d'accord na ne ma xoola bu la gisee ci télé bi day kontaan sa baab ni tël dugg sama yaay ne ma allo da ngaa juum de eh, fi ngay ba waaw da ngaa juum <laughs> ah oui ah oui mais loolu moom mënul ñàkk yenn saa nga nekk ci yoo xam ni parents duñ nangu. mais c'est juste que dañ dul xam li nga xam ni moom nga ci bëgg eh Madeleine Diagne merci beaucoup merci à Malick Osé exclusif gars yi jàpp ngeen ci Amadou Cissé merci beaucoup Mourtala Seck Sima Couture jërëjëf résidence Lat Dior monsieur et madame Diouf merci et le petit frère Diouf merci ngeen beaucoup bu baax ak le ak ak tout le personnel de résidence Lat merci beaucoup jërë ngeen jëf et encore une fois bindaat na ko. Matar bi bindaat na ko merci beaucoup Matar et sa femme jërëjëf Waly Ngom merci beaucoup Waly Ngom merci beaucoup merci beaucoup Waly Ngom Juma ah kooku sama kooku sama rakk la merci beaucoup Juma Khady Baba merci beaucoup Bouton waaye sama xarit bi Bouton waaye merci beaucoup waay Bouton jaajëf waay Bouton ana Babacar Anta Sarr merci Ibou Pël Sow merci Pape Doumbia bu euh, bu Thiès Prestige merci beaucoup ana Pape Cheikh ani Pape Cheikh Fall yow kaay kaay Pape Cheikh Fall yow booy kaay yow booy xam nga ñaata billet nga jaay yow ah est-ce que xam ngeen kii moo feesal salle bi waaye tàccu leen ma Pape Cheikh bu baax waaye mon frère kontaan naa ci yow l'ami des jeunes filles kii merci beaucoup Pape xale jigéen bëgg ngeen Pape Cheikh li ngeen di sant yi jox moom fee kontaan naa yow bu baax a baax a baax merci maa ngi lay souhaiter une très bonne continuation xale bu dëkkee ci dëkk day gëm dëkk bi gëm boppam mais s'il vous plaît s'il vous plaît lii commencé wul li des ci biti moo ëpp li jàll damaa bëgg salle bi bu dee bëgg ngeen ñu kontaan loo leen sinon li mën na fi yem rek nii nii nii nii bu dee bëgg ngeen lii continuer salle bi yëpp dañuy jëm taxaw tàccul ma Ablaye Sow bu baax a baax bu ñëpp jugul ñu arrêté ko na ñëpp jug taxaw ñu tàccul ma Laye Sow tàccul leen ma ko bu baax a baax a baax kii na ñëpp jug taxaw bu ngeen ñu arrêté ko ñu ci des du ñëw ñu kii kii mooy initiateur lii fii ci biir moo ko xalaat xalaat doon ko waa Thiès ne dañ koy indi fii par moo wax ak Baye Serigne moo wax ak man moo defar billet yi moo ko jaay moo wut ay parrain wut ay marraine moo ñu jox résidence la Dior kii tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax c'est un frère pour moi dama koo bëgg lool lool ma nekkoon fan sam mu reetaan loo ci mook saa neex ci affaire sida bi ma reetaan ci bagaañu mais mu jooyloo ma ci bi mu nekkee Sidina ma yàgg ko topp ci tolof tolof mu jooyloo ma ma yàgg ko topp bu baax a baax a baax dem ba yàlla boole ñu man ak moom ñuy liggéey partout fu ñuy dem ci région yi Ablaye Sow moo fay njëkk mooy organiser mooy def lépp moo frère kontaan bu baax a baax a baax bu dee am na loo ci bëgg a sànni ma bàyyi la nga sànni bëgg merci beaucoup ñoo am son entrée wayu entrée euh, bu ñu tagal yéen artiste dégg nga Brosse. ñi ma xam ak ñi ma xamul ñëpp. mooy wax ni ah. bàyyi naa la ñu yàlla bàyyi naa la ñu. ndeysaan ndeysaan. sama xarit nga tu es mon frère. yow sama xarit nga tu es mon frère. nga Ablaye ngi jooy yow moo ñaaw jooy de. bu mu ñu defal loolu bëgguñu. bu baax daaneel ba pare. mais ñi ma xam ak ñi ma xam jooy de gisuma ci Kumba Gawlo Seck ah waaw jooy Kumba jooy ah am na bu rafet Kumba Gawlo Kumba Gawlo Seck jooyam dafa rafet rangoon du génn Kumba Gawlo eh dañoo commencé spectacle bi te defuñu fi ñaan te loolu wóorul faaw ñu def ngeen defaraat toogaay yi ay kilifa ñooy dugg si defaraat leen toogaay yi yenn saa yi nga gis ay sëriñ yoo xam ne dañuy yab de ay sëriñ yu mënul dara yow am ay ndongo yow sëñ bi yow toog ci biir këram teg piliaanam woo ndongo yi yow benn xale bu mooroom sëñ bi woo ndongo yi ah, ndongo yi eh, eh, gis ngeen xale bi eh, indi leen ko ñu indi ko xale bi dugal ko ci biir néeg bi ñu dugal xale bi ci biir ndongo suñu leen ko ñu suñu xale yi lu ngeen di xaar suñu leen ma ñu suñu ko sëñ bi tëral leen ko ñu jël teg leen ko ci kawam ñu teg ko ci kawam mu nekk ci ba ci yàgg pare yow daal ni noo ngay noo ngay ana ngeen nga ne ko ñëw leen ñaata ngeen ñoo ngay def texe ngeen waaw waaye yow Paa koo yeb yow eh tàcc leen sëriñ bi ñëw ñu spectacle ba neex ayca ñu def ñaan daal di commencé bi ayca. waaw kay. ndeysaan sëñ neena àdduna kenn xamul sëñ bi expliqué ñu wàcceel sa tànk yi sëñ bi day bañ tegle sëñ bi nee na àdduna wóoratul sëñ de expliqué ñu sëñ bi nee na àdduna kenn xamul sëñ de expliqué ñu sëñ bi nee na àdduna wóoratul sëñ bi expliqué ñu sëñ bi nee na àdduna kenn xamul sëñ bi expliqué ñu ndeysaan déggal loolu mbokki Cees kaay benn dëkk ñaari gaat sëñ bi ne yéen ñi nga xam ni xamu leen bëgg mu xamal leen ngeen ibbi seeni nopp toog mu expliqué leen sëñ bi loo teg waaw déggal loolu ak am fulla ak am fayda sëñ bi ne li ko dale cat bi ba ca cat bee nuyuwul kenn te bu ko kenn fay ma ñàkk sama ndey ku ko fi fay sëñ bee leen gën a bàkk perek day defanteeg yéen bam sap sap ma leer na loo teg dégg nga tam ah, dafa leer nii kaddu yi ngeen dégg mu jub fi moom mii sëñ bant mu tëdd doomu Alaaji Xob moo ko wax moo tay ba tayaatoo waaw kay ah, dafa leer dégg de xanaa lii moom war naa leer ci seen bopp ne képp koo xam ne yëkkati nga ay di ko fi wax na la leer ni laaju la laajaatu la jëree maam yóbbaale moom Casamance tuf sëñ bi loolu téel léegi du ni nga jonkone te ngaa toog bu baax hmm? waaw baax na wéy na wéy na waaw dégg nga loolu de nii jàng yi nag ren nam demee woon daaw jéeg demee ko daal noo nii lay demee ren te bu déwénee it noo nii lay demee loo tegati waaw noonu maanaam sëñ bi ay kilifaa fi toog da ngay wax mu leer ah waaw waaw waaw dégg yi noonu yi mu demee woon daaw jéeg demee ko daaw noonu yi lay demee ren te noonu lay demee waat waaw waaw waaw ñëpp a ngi fi tabaarkàlla allah ñii di yari xaj ñii di yari nag ñii di yar ay bëy sëñ bi jublu ci yar ay xale yu jigéen yu baax bëgg nag góor yi tey yii fi toog ngeen procuré wu ci sëñ bi ku ci bëgg a procuré wu nu muy def ñu joxe cent mille dégg la tabaarkalla macha waaye ku may may cent ñu jox la ceeb bu ne tubaarkàlla macha allah faaj nooy def waaw waaw waaw waaw delloo tubaarkàlla ne yow mi joxe ñaar fukki junni jàppale ko ci jàngam yii ne dina la jox jeeg bu ne faaj triboor ba baba nee nga yendoo njogonaloo fanaanoo yewoo ndékkee delloo nanga delloo nag na ngeen fexe ba na ngeen delloo jiwu ji sëñ bi defar demal xam naa sëñ bi xaje na xaje xam ne ku delloowul mu ñëw jël si man xam naa ko bu baax moom mi joxal waaw fukki junni tiri du du yegg ba tiri waaw waaw waaw waaw delloo ne yow mi ngottu jàpp nga yor ñaar fukki junni xaaf ko ci digg ba ni sëñ bi fukki junni am ci sa xale yi laa bëgg ci sa gétt gi ñëwal nee jeeg la lay jox boo xam ni tiri rek la du tiri boor ba boor tiri rek nee nga yeewoo yendoo njogonaloo delloo doo fanaanoo maa ngi leen di wax ngeen defe ni ay kaflaak ay réey sëñ bi xaja na xaja goo xamante ni si këram na nan def ñu joxe vingt mille vingt mille ah la ni ay ay ay waay ay waay ay waay dal rek dal rek waaw waaw dal rek danoo fàtte woon ni moom mii Typhine da koy daaneel waaw tuddati naa ko maa ngi jéggalu bëgguma woon wax Typhine ngay yóoxootu moom nag daanoom li ci soof dafa mel ni daanu géwal koppar rek dimbali leen ñu ci àddiya xeebu ñu yëpp defal ndànk maa ngi koy xam waay yow maa ngi koy lijjanti leen lu waay lu waay am lu ay mën ci daanu bi da ngay tey lu waay am lu mën ci ñu rek dimbali ñu ay lu waay am lu waay mën ci daanu bi da ngay joxe hmm? lan la am daa ba doy na am xam am teel day yomb de booy eh! waaw fóon de koy yëkkati fóon soxna si dooma baal rek ku yor kii tuñ bu disponible mu fóonal ma dimbali leen ma ngir yàlla dimbali leen ma ngir jëmmi seen bant bi ay da ngay def ndànk yow da ngay def ndànk xam si sëñ bi dooma aal nga dendal mu fóonal ma ah eh jigéen la wax leen ma ah lan mooy fóot suñu jigéen ñi disponible laa ilaaha illallaah da nga koy fóot da nga koy fóot da nga koy fóot laa ilaaha illallaah laa arrangé leen waaw waaw waaw yéenay encouragé yëfi caga waaw may ko musuwaar mu fomp waaw lii nag xam nga lan la sëñ bi sëñ bi lii faaw lu jóg man mënumaa comprendre konka lu magum jëmm di daanu ay fon di ko loolu dafa yomb bu doon ñu ñëpp ñu daanu ah ma ñëw noonu voilà a yomb torop waay sëñ bi wéy na ñu dem sa daanu yi moom boo ko bàyyiwul fii baax na da ngeen da ngeen da ngeen di mën a noppi rek ñu wéyal li ñuy wéyal am na naa leen yàq ni ngeen ndax jàngi daaw yi dina ko yàqoon ak i saaga ndey ren bi saaga ndey maay jël sama responsabilité bi képp li mu moom mu ngeen képp li ngeen moom képp li mu moom ba keroog ngeen di képp li ngeen moom mu képp li mu moom. te xanaa sax war ngeen a fowe catégorie képp ngeen saa képp pour désilor képp pour liggéey bi képp sëñ bi képp ci góor waaw fu ñu dem ñu yor 20 000 pour wax baat bi day daanooti di nga leen jox ñooñu waaw waaw waaw. Delo. Delo. montu bu la jàppee ba ngay pain bi naan sa sa gétt gi laa bëgg ñëwal ñëwal baax taay lañ lay jox nga yeen noo jox na loo delloo doo fanaanoo doo fanaanoo wéer diini daa dégg nga de kuy xeex pain bi ngay jàpp sa ñaari junni dañ lay jox mineur nga laal ko ñu tëj la. waaw kay amul junni ku junni waaw waaw waaw waaw waaw dafa junni moom ni ci gétt gi laa bëgg ñëwal saabu lañ lay jox saabu. waaw loo xam nga def ci saabu booy sangu nga sangu booy nga waaw booy appel vidéo nga appel vidéo waaw te nga bañ mu furi rek sëñ bi gannaaw nag yeggal nañu ci jeexitali jàng yi bant mu tëdd doomu alaaji xob sës rëkk ci garabu niim daf leen bëgg baaxee ci baatam bu neex bii ko yàlla may waaw kay ngeen déglu rek mu baaxee leen ci ndeysaan déggal loolu ndeysaan taarkal la boo demee duus war na laa sonal loolu leer nañu loolu leer na la yowaay jëm daay daay la waaw bu ko kenn baal ndeysaan moo tey dégg loolu waay waay waay ku bëgg a bokk ci sëñ bi famille na jóg waay waay wuy loolu waay tabaarkalla macha allah jàng yàlla daw me na ba nuppi sëñ bi jógal sànni ñaan jàng yàlla me na ba nuppi jógal sànni lay ñaan jógal jógal watalul dara foofu mu jonko noonu buñ fi yaa ko moom de ay ca ngeen dëpp loxo yi ñu ñaanal leen dëpp leen seeni loxo ñu ñaanal leen dëpp leen seeni loxo ñu ñaanal leen bàyyi filme bi te dëpp nettali doomu ngeen nekk dëppal sa loxo yi dëppal ñëwal ñëwal ndeysaan ndaanaan nga sëñ bi ndaanaan nga nga bant mu tëdd ndaanaan nga ki jongal ki ko jongal ndaanaan la yowa ndaanaan la sëñ bi ndaanaan la ndaanaan nga sëñ bi ndaanaan nga sëñ bi de sëñ ma sëñ bi wax na ay wax yu fort ay gërëm rek la sëñ bi doon wax. Ndeye Sine merci beaucoup merci Bella ah merci ñoom bébé si ndaanaan yooyu nga xam ni ci wàllu euh, théâtre ak ci wàllu humour yàgg nañ ñoo bégal bu baax a baax a ah euh, Ibrahima may soppe moom moom moom euh, du ko benn merci parce que moom. c' est notre prof c' est grand frère moom daf ñoo war di assister fu nekk yàlla yàlla defal na jàmm c' est un grand professionnel un grand monsieur boo nekkoon Angleterre ngay dégg gradu si bu yàgg grand monsieur yàlla yàlla defal na jàmm et eh, danoo dem ci dëkk boo xam ni danoo bëgg buur gis nga ay xeetu sëriñ yu mel nii am na xeetu buur yu mel nii buur bi napp na waa dëkk bi napp boo xam ni dañ buur bi du ree lu bari waaw mbete bëy waaye li jàmm la góor bi bi mu reetaan ak ren mat na vingt su waree reetaan dañuy woote ci pénc bi ah mbokk yi buur woote na tey ah ci seen information mooy tax wala kii di ma yeggali daa war ree na ñëpp daje ci pénc ma 17 heures ku yéex ñëw du place de 18 heures buur day ree pénc ma fees del 15 heures aaral buur 16 mu toog buur dugg si 17 buur 18 la war ree du seize guud yow lii moo baaxul ci benn xoot nga koy indi pour buur buur ñëw dix-sept heures ne ci biir penc mi yow ci digg penc mi buur di xool jàmm xool seize buur cum am teel li fii la buur déedéet bàyyi buur bu toogee day dëkk buur dëkk toog nii bàyyi ngeen wéet ci benn yoon damay ñëw ànd ak yéen accompagner leen ci moom tamit homme de culture la et il est très bien aimé du kenn ku dul bëgg naa ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax mu def déplacement ak dérangement di mag di kilifa tey dañoo am mbég am kontaante boo xam ne kontaante bi du ci li nga xam ni moo lëmbe réew tey duñ la dalal ay kàngam yoo xamante ni bii néew na wala bari fu ñu gis ku ci mel ni Pakistan ki ni njëkk dalal mooy Macky gis nañ ko mu invité ñi nga xam ni ñooy euh, euh, ministre yi dem toggi ceeb ndax da koy lekk wala ko lekk nañ seeti Macky 오 누가 먹으려고 duma gërëm duma sant encore une fois dem mbégte kontante moo xam ne bu kontaan bu fulo jàkkaarloog yow dama kontaan soxna Maram si moom parce que liggéey bu rafet la def si askan wi barki tey barki yàlla non barki yàlla bégaay soxna Maram am na làq na sama ngërëm barki yàlla bu toggee ceeb nga daanu bu waxee da ngay bëgg mais président est que ceeb bu togg croque neexoon non dafa fottal laaj bi rek mel na xool la de na dafa fottal laaj bi rek mel na xool président gërëm na la maître El Hadj gis nañ nga sonnoon ci ah loolu eh, dama eh, kontaan eh, di am mbégte mais président man man dama ko bëgg ko bëgg béyaay parce que boo li ma ngay topp nit ñi na amee daal eh, jur ba ñàkk ful eh, eh, dafa ma lépp ma lépp bu laa ko ñaan mu defal la ka ma damaa WhatsApp man maa bloqué WhatsApp. Eh, benn jour laa ko romb rek ni ko soxna Mariam sa musóor gi daa leng mbala yaa oh, loolu yaa ko wax moo tax loolu moom gën a dugaa jono la xale bi di yaa ma gënoon kaa dugaa jono soxna Mariam moom ma moom ma gënoon sama yaay maam bi ma kenn du moom si moom waaw waaw gis nga ku nekk ak ki nga bëgg nit ki vraiment Maître El Hadj gis nga li be li Macky wax wala wax nee na moom euh, ma dikki yow ñu gis ne yaa jël cinquième cinquième di ñu jël. non taxawal benn affaire bi nii la demee affaire bi tegul na ko si yoon parce que Idrissa Seck mu ngi nii sama wet dama bàyyi ma wax leneen lu dul dëgg bi ñuy sànni carte yi mu ngi toog ñëpp ngi toog da gis ñu barke Serigne Saliou man bi may kii te ayaa xujaama woo. Adja Khoudia woon ni nga du ni ma tëral nelaw mais dëkk baa nga tooñ ma ne ko waa lu xew Adja Khoudia lu xew mu ni ma Macky gañe na leen kafe gi mënoon naan noonu la këppoo barki Serigne Saliou ndax tiit musuma xalaat ne dinaa jël ay cinquième ñi ma doon toog laa xamul fu nu nekkoon ana nu ñi ma topp naa ma dikkee toj nga fi toj nga fi laa xamul oh toj nga fi parce que toj bi mooy zéro yi nga am ak deux yi maa la koy yéene ma seen morom jaar xamu leen ko sax da nga ni bond bond bi ba benn waaw ma Macky may ñu Idriss Seck vraiment lii lii kii wax dikkee loolu waaw man damay gërëm damay sant yàlla xam nga maam yàlla dafa wax ci alxuraan dañuy wal muslimina wal muslimaat iqwa def yàlla wax man duma baraame boo gisee tees naa ko gañe soog ko gañe diaspora mais damaa jékki-jékki mu mel ni dañoo lëbëje <laughs> xeetu tappale njublan goo xam ni waaw mais ñi may wax ni ma ñu ma wax ni ma lu tax bi ma waxee ni Macky gagné nag dañoo waxoon damay giim ñu def dara wala dafa am ñaari kilifa yu ma ñaan moo tax ma estën bàyyi bàyyi mu sedd ñaari kilifa yooyu ay feccikat lañ non pour wax la waaw pour wax la may wax Ziz Demba Kandji na fàttaliku saar bi yàlla naan su mara danaawu moo taxaw su mara danaawu asfala saafiliin nga koy fàttaliku yàlla nee na lépp loo àtte fekkee koppar tax jaru ko bu fekkee oto yim la dig la jaru ko bu fekkee lu mën ci doon jaru waaw tey soose mi toog xam na li may wax waaw waaw Idrissa Seck waaw wax na sa confession mais i tey tey ñu gis ni koor gee ni ñëw diini ji ak politique bi fi amoon eh, rabbi sarax li sadri eh, wa yasri amri wax nit ko xadatal باللسان eh, gannaaw waaw gannaaw ba nu sant yàlla gannaaw ba nu sant yàlla tabarkàlla wax dëgg yàlla eh, jigéen ñi léegi yu seere ñuy sol jumbax aw eh, nga sol tubay mu seere sol tubay mu ni ñàpp ngay dox muy nii xam nga loolu jaaduwul il faut ngeen rafetal colin bi il faut ngeen rafetal colin bi waa ki ñuy ñëw mooy Balla ak Modou Lo ak Siteu xale yi phénomène de l'instant ki ñu njëkk dalal mooy Balla Balla ñu gis la géejewaay xew ya nga ñëw mais di ñu gis ni ñoom béy jën ñëpp dañoo booy Balla loolu la. di nuyu béykat maa ngi leen di nuyu présentateur bi ba fekk yow barki Serigne Bassirou Faye man géejewaay maa ko moom. mais est ce que lan mooy maa ko moom te buy géej ñëpp ko. dëgg man double S mooy sax. man lamb dama ci bokk. man nag doo fi nekk nii woon maa ngi nuyu buri bàcc bu baax a baax a baax buri bàcc maa ko nuyu. waaw Balla dinañ ñëwaat yow Modou Lo Modou Lo gis nañu nga voyagé ñëwaat Modou. Bella dama lay nuyu soxna. di nuyu ñëpp xam nga. di nuyu ñu fekk di nuyu Siteu di nuyu Siteu di nuyu Yékini di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp sëf kenn moo xam ne loolu. man boobu nuyuwul tamit faale ko. yow mais li jënd dangay bàyyi ma wax ak yow mais waxuma ak yow sam la waxuma ak yow yow fekk nga fi nuyoo ma. dangay wax non da ngeen di tax yem ñu régler problème bi balla bi mu ñëwee tu moo tudd la bu ko tudd. barkeel Seydina Muhammad tudd la. mais maa ngi wax di nuyoo ngay wax sam la ngay tudd di yaay kii mais yow jar ko. bëri na ñaari yoon nga daan mais loolu est-ce que confiance la bu ma loolu man Siteu ah gars maanaam man dama la sant seen sëriñ Mbaye alxuraan da sant Aba Aba Baye Fall la wala na seen sëriñ Mbaye alxuraan kii tànki naa la bu cirki naa saa dégg man li ma daan xam naa ko ay manque abati rek moo may daan <laughs> eh, léegi dama bëgg ñu koy benn benn quoi man naa lay interviewé léegi loo wax ci public bi ñëw fii Mohamed Ndao Tyson. Euh, je pense que ni tey dama koy. abba tey wane nga ni animateur yaa ngi koy yaa ngi koy yëgal high level niveau bu yéeg je pense que ni tey même mooy daanu dix combats tamit damay que maa ngi ñaan mu yam fii parce que defe ni bari ma sama soxna day génn ñaan ko sama réer dàq daanu ci Sénégal. ok loolu baax na mais Yaxya Diop Yékini. ana loo wax ci mbooloo eh, maa ngi lay gërëm ndax gis naa li ngay liggéey mbooloo mi nekk fii ay borom baax lañ eh, maa ngi nuyu ñëpp suuf ñaar ñoo xam ni bëri naa ak ñoom ñu daan Balla Gaye pour nit ñi xam ko bi may bëri moom ndigg luy ruux laa amee non pour mu leer ndigg luy ruux mënuma taxaw dix minutes yu mag léegi léegi ana Tapha Tine fan la Tapha nekk man dangay nuyu gars yëpp waa Réfane yëpp xam nga mais yow xam ni du ma bëre mais bu dee bëre rek Tapha mën na bëre mën na lam mën na xeex quoi mais dañ may bàyyi téye loxo bàyyi naa dóore quoi nañ bàyyi di téye loxo. léegi ñun léegi ñun gën nañoo gis euh, Issa Pouye te xamuñu ci lu ah, ah, man am naa fit. mais xoolal gars yi du ko dindi man si xaw xaw ma sëy na maanaam sëy sëy mais xool du bëri bu dee bëri mën naa ko ak jën Vraiment, vraiment, il est extraordinaire. Merci beaucoup. aba paa bi hmm. maanaam dafa takk jabar ju ndaw 90 ans am takk xale bu ndaw mooy ñaareel moom la ñuy wàccee bi mu takkee bi mu takkee xale bi guddi jot ñu dégg yuuxu woy samaan lay woy yaay yooyu woy say de kër gi ñëpp daw ñëw ñuy woddoo sarbe par naan woy samaan lay doomi ñu ni ko góor gi Ibra Jaw loolu la mun dem leen toog dem leen toog yàbbi na ko léegi <laughs> jëlal say kaas jëlal kaas yi fii dóor kaas yi fii kaay booy kaay toxo toxo kaay man comprendre ma de toxo toxo kaay kaay kaay kaay toxo mag mag am na foo xam bu ko day guro ak petit cola ndax du moom lay am non mën naa petit cola la tamit. ayca <laughs> merci beaucoup Ndiokhou. tàcc leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax. yàbbi na ko léegi. léegi nii. waaw. <laughs> eh eh eh eh am na am nañ pa am na mag mu nekkoon suñu koy. mais dafa naqari woon deret xaadim jum maa ngi lay nuyu di nuyu ñoom xaadim ak sama yeneen yi nga àndal yëpp yëpp yëpp xaadim jum merci beaucoup mon frère xaadim léegi naqari deret ñu naan paa bi dafa tàng paa bi boo ne ci abusé di ci def lu ko neex di yuuxu nit ñi di gëddaat bu ñu wax nag soixante cinq la am nañ ko may jabar dina dal pam naa loolu sama nekk si laa wax ñu ne may nañ ko jabar soxna si mu ngi sëy si muur nañ soxna si indi nañ ko paa bi tey la gën a énervé doom mu réegu ñu xool la looy mënee mu réegul soxna si mu réegu rafet jonga ma ba ñëppaal par naan ko ngay ñeex-ñeex lu nii ki ne wax lay dal ñu ne ah xam naa bu guddee ba mu jël soxnaam dina dal guddi jot ñëpp toog ci biti pas beeg soxna si ci biir néeg bi kañ ngeen sumeeku kañ ngeen sumeeku man ne ko père ba soxna ci biti di laajte waa paa moom kañ lay dal paa bi yow paa bi rek waaye waaye waaye waaye paa bi de waaye eh paa bi ndeke mu ngi sori paa bi ba arrivé ñu naan paa dina dal paa laajte naan lii génn ci man lan la lii lan la eh eh eh, eh. may nañ eh may nañ benn paa suñu koñ may ko jabar paa ne du ko jël góor gi jëlal si paa ne du jëlul jabar ji baax na. ñu ne ko lu tax mu ne moom bi mu dundee ba tey day jaamu yàlla xamul loolu te buñ ko dugal ci loolu ñu ne ko takkal paa bi bañ takkal paa bi bañ ñu woowi chef de quartier mu wax ak moom paa bi ne maa bañ imaam ñëw wax ak paa bi paa bi bañ mais paa bi ragaloon na benn agresseur bu ne ci koñ bi nu woo agresseur bi agresseur bi ñëw génne paa bi ne ko père da ngay takk wala doo takk mu ne moom dina takk paa bi takk ñu jox ko soxna si paa bi ñu ne ko non yow kii xale la yow li koy def nii bàyyil paa bi waajagul bàyyi mu ñëw ne paa bi hey père hey bàyyi paa bi sikki ma netee bàyyi mu eh saaga ko yow ñu ne eh paa bi jéngu na ñu woo benn militaire benn ab policier bu mu ñëw paa bi saaga policier bi mu ne ah kii buñ ko dina woo armée bi armée bi ñëw chars de ñu teg mitrailleuses yi ñu teg ah. ubbi kii grenade ñuy daj di teg loolu wàññi waaye maa wàññi loolu yooyu yëpp ñuy daj di teg paa bu ñu compter ba trois paires boo dañuy taal yëf yi tàkk sa kaw paa bi rek yow chef bi yor wàllu maanaam armée boobu ne un deux trois pas bi ci jëm boppam trop nen na ni waajurul bàyyi moom moo ni feu moom pare na pour dee moom ne feu xale bi bëgg a ñëw beneen xale bi nga xam ne mooy bëgg a ñëw avant muy ñëw avant xale bii di ñëw dama bëgg foo ba ngeen énervé wu pour xale bañ a ñëw parce que xale bii dafa soof dafa ñëw Thiès dugg ci salle bi ñëpp yuuxu te man loolu bugguma ko. waaw léegi bu ñëwul nag léegi bu ñëwul nag dijee tegal ma mbalax ñu fecc te wayal ko ko général bi ñëw tey mbalaxal ma sibira sibira eh damay wax arrêté bu ngeen bëggee général ñëw yéeg ci kaw seen bi damay wàcc ci public bi du ma jël n'importe qui nag kilifa laay jël kilifa mu ñëw yéeg fii zibilé bu <laughs> dee d'accord ñeen ñu jël mu yéeg damay gëm kilifa bu ma neex laa jël ma di dox ma gëm kilifa jël ko ma gëm ah. ah? kilifa laa wax kilifa. kaay toog kilifa laa wax <laughs> muy daw kilifa kilifa. Eh, eh, eh, Maxtaar Diouf bu yéegul ci kaw seen bi du ñu yeggali Maxtaar na ko ñëpp yuuxu Maxtaar Maxtaar bu yéegul du ñu yeggali merci beaucoup Ndeye Ndiaye Alassane merci beaucoup Matar bu yéegul du yeggali général du ñëw général du ñëw Matar yee ñëwal rek ay kilifa yoo kaay woo woo Matar Sidi ñëw eh Sidi eh, bu yéeg de yéeg loo wuñ de Matar mooy yéeg ñëw Sibiré eh, ñu xool Matar ay paradasam intellectuel boo xam ne liggéey rek la gëm bu ñëwee fii ngeen gis pecc moo xam ne pecc mu tayal. yow bi nga fooy di fecc yow naan zimbile zimbile xam nga boo nekkee xale ne Sénégal di wut liggéey wala dara dañ lay digal ay ngay saraxe ay sarax dafa am solo lool lool dafa am grand bu dëkk suñu dañ ko digaloon mu saraxe nag lañ ko saraxe loolu mu saraxe nag bi mais pare sax jox la ay tegtal ci ay sarax yu compliqué saraxeel nag bi rendil nag bi mais bul ko fees def ko ci sale ba yoon kii njëkk a ñëw mooy fees nag bi ku ci ñëw li nga dagg mooy sa wërsëg maa nekkoon booy nekkoon eh, la sunu maa nekkoon booy ñu yónni ma may dem di woote Paa Njaay laa njëkk woo mais bi may woo Paa dama ko fekk mooy sangu ma ñëw ni ko Paa nag wi dee na ba nga ca bopp koñ ba boobu koñ ba yàpp gëj na fa Paa xiifoon na yàpp namoon na ko lool mu sol grand mbubb bi noonu jël pool jël paaka dem jiitalul dara ci biir Ndiaye njëkk ci nag bi bi Ndiaye yëggee ci nag bi moo fees moom Ndiaye. tàmbalee jël res jël ay yu baax yëpp ci nag wi man ma continuer dem di woote woo ñoom Pa Diop maire Ndiaye tata Nafi tonton kii euh, tata Rose ñoom Père Salif ñoom ñëpp ki ma mujjee woo bàyyi mbuub la mbuub mbuub mooy géwal bi nga xam ne moo nekk moo doon rey suñu koñ doon fees ak yooyu yëpp mbuub laa mujjee woo mais mbuub bi muy ñëw ci nag bi fekk na. ñu wër nag bi ñëpp tiim nag bi nag bi fees dell ak ay nit mbuur moom bi mu yegg si xam ngeen géwal paakaam day ñaw 108 la yor gisul nag wi mais am na yaakaar ni fii la nag bi daal moom buur xalaatam bu rafet rek bu leen fàtte ni Pa Njaay man te digg nag wate moom bi muy ñëw grand boobu rek la def mbuur bi mu ñëwee ci digg nag wi yaramam tàng na gisul nag wi mais xam na ni lii ku di sa wërsëg diñ ci lekk mbuum yor loxo bi bi mu yoree loxo ñu wàññi jàpp na mbuum lim jàpp tolloowul te mbuum lim jàpp ëpp na ñaar mais comme mbuum dafa spontané daa jàpp rek dagg Paa Njaay Paa Njaay woon ci digg nag wi mbuum bi mu jàppee rek dagg Paa Njaay dafa geesu ndeysaan Ndiaye yëg na am piix boo xam ni moom gëj na koo yëg Ndiaye féex daan ni gestu daan ni ana ki mujjee dagg mbuub boobu yaramam tàng na parce que bi muy ñëw da doon daw daw ba yegg si Ndiaye man la mbuub maa mujjee dagg Ndiaye ba tey ci dal gi ci bu ñu daggal Ndiaye dal rek siggiwaat ne ko mbuub est-ce que xam nga li nga dagg bu ne waa Njaay eh, ak ñi mun wooyee ni est-ce que du res Njaay ne ko mu xaaj res dina am karam eh <laughs> eh un grand merci encore une fois à Madeleine Diagne madame Diagne merci beaucoup Madeleine Diagne madame Diagne jàpp na ci bu waaye merci infiniment merci éternellement à monsieur et madame Diouf résidence la Dior jërë ngeen jëf wax naa leen ni boo may defal nag ma defal lu baax ndax man damay fayu et loo ma def dinaa ko fayu bu dee lu baax dinaa ko fayu bu dee lu bon dinaa ko fayu aw ma xaalis bu ma leen may munu ma leen a fay waaye waxkat laa te maa ngi feeñ fu ne nag tarkalla dinaa wax ba ngeen ni ma abaa noppil yàlla na seen jàmm yàgg xale mi bëgg a ñëw xale la boo xam ni seen koñ la feebar bu metti bi amee woon xale bi bëgg a ñëw xale la boo xam ni seen koñ paa bi ak mère bi dañoo feebaroon bañ mu dal doom yi ñu dem hôpital ne dañuy faju xale bi bëgg a ñëw seen koñ la paa bi ak mère bi am na ay couple yoo xam ne dañoo sincère ay couple yu fidèle ànd hôpital xale bi bëgg a ñëw couple boobu ba ñu demee ci hôpital yu yëmbal ba kii médecin bi feebar bi leen dal nag compréhension moo la koy xamloo bu dee mënu ma ko wax ngeen dawal seen xel paa bi mooy wax bi mu ñëwee ci médecin bi salaamaaleykum docteur man ak madame dañoo amee feebaru xoddaal bëggoon nga jàpp ma bàyyi la madame maa ni ko waa docteur comme ni la ko alaaji waxee feebar bi baax na laa ñu bëggoon nga jàpp te médecin bi jug ne leen na ngeen def ça va si la ëppee tàcc leen général Kayde général Kayde merci beaucoup et xoolal Aba Sow takk na Sénégal yéen la may njëkkee nee na sa amee doom it yéen la koy tuddee jigéen ñi góor ñooy papa yi waaye su boobaa maa yéen a wëlis wax leen zene loo indaale laaj leen ma lu ma indaale xanaa taaba tafe taaba tibi de taa xoolal nu may doxeek nu ma ñaaweet moo taxit dalan hoo et eh, bonjour bonsoir peu importe ça dépend de la position du soleil général allez merci beaucoup général c'était général merci beaucoup ak li seen yaakaar soowu jërëjëf ah ah dañuy waxtaan man ak yéen waxtaan bu ngor rek dee ngor deux mille yéen est am ngeen xel deux mille ngeen am li deux mille deux heures yéen am ngeen xel waaye jërë ngeen jëf ba avancement bi di ñëw. dina daan ñëw waaw na ku ne joxe sax na ne joxe sax général taxawal ne bañ wala ok ok nag saasaa leen ko saasaa leen xam naa buñ génnee ngeen jox ma ko général Kairé général ma fi xam ngeen événement boo gis am na sponsor événement bu tay bi yàlla moo nekk premier sponsor bi moo ñu financé tal tàccu leen ma bu baax a baax a baax moom jël yàlla tàccu ko moo tax ñu fekkee bis bi préparation bi yëpp na lool waaye moo jàpp si événement bi man ci eh, eh, eh amul lekkat nit lekkal ma kii doo yam événement bi sama soxla laa si wax mooy gel bi man maa ko doxaan yoonu kenn nekku si ñàkk a jàngam yoonu kenn nekku si man maa ko nopp eh fexe naa ba inscrire naa ko mi ngi jàng sarne léegi sama gel la et eh, xëy na ñëw suñu kër man kese la ko fekk man ko safeel occasion tey kër gi kenn nekk fi am dama nga jëndal ma big rouge mu dem ba bitig ba ñëw ne ma yow noo ma ne ko indi sama xaaj dugal sama poos ma jékki-jékki naka moom ma ne ko ana waa gàlle mu nu i eh, général man gëj naa gàlle de ma ne ko foo nekk léegi mu ne maa ngi suñu kër du eh du wax du laajte moom nu mu xalaate noonu lay waxee eh, mu jékki-jékki téléphone am sonné message ma xool ko mu ne ma liiral moo ko ma ne ko kii Messi dama rappelé la la yónnee mu ne ah, ah envoyé ko derrière ma jox ko téléphone ma jékki-jékki man ma ko damay dem dakaar damaa bëgg ñu ànd Dakar mu ne ma def ma dara mun na noo dem ma ne ko waa xam nga almadi mu ne ma yow général yëpp nga ma de man mu toll ni man nga may laaj ba xam nga almadi te almadi mooy am chocolat bi si biir man ba ay eh, man ba ñu ma mu lekk ko de mais man boli lay jaar ay kóllëre moo tax ma jàpp ko parce que suñu rapport ba pakoti daa am lu mu waxul am importance si kóllëre mooy comme naan kóllëre ginnaaw lay féetee te kuy póot bëgguma seet bis faa nga féete loolu la wax kóllëre boobu moo dal sama mag papa man tey si suba maa ngi ko gis mu ñëw ba si sët bi yee ko nekk jógal ñu jàng moo ko sët bay bokk même classe jardin nee na ngorom nee na ngorom may ko moom mi bàyyi école boobu dem beneen man si ay tànkam laa jaar je rappelais ñun suñu classe 44 élèves lañ woon suñu premier compo man maa jël 43e sama xarit la yaali moo jël 44e ñu defaat deuxième compo ma jëlaat la même chose 43e yaali jëlaat 44e eh troisième compo di waaj a ñëw yaali wax day bàyyi ma dem boole ko papaam ma dem si papaam ne ko yaali leen day bàyyi yaali daaw jënd kerem ba may ko waaye ba ma déclaré ne day bàyyi saabu bu may jënd kerem ñaar laay jënd jox ko benn jël benn pour bañ mu bàyyi yaali bàyyi ma baay am na sam benn xarit Ibou Touré moom moo doon jël 42 heures xëy seet si ma naam général temps yi da ngaa gën a jàng si ma ko bàyyi naa e mu ne ma non général bul bàyyi waaye ma ko ça dépassé yaali bu yaali jàng see ma jàng si bu bàyyee bàyyi naa ibu lu ngay bañ laay bañ ibu ku nekk ku nekk ku nekk xam na ni dawkat jàng daa automatisme mooy saa boo ko laajee lu la tey jàng am na lu la tontu dawkat jàng yi laay waxal uwee lay dawkat jàng ok da ngeen ni sincère et eh, damaa toog ba heure bu ma neex ku nekk xam na jamono ba may jàng tama jamono jooju téléphone portable bariwul du ma régler réveil suñu ginaar kër moo yee waaw ginaar gi buy sab kokoriko mooy fajar gi ci la ñuy jug jàngi benn jour maa ko def espéré toog ba heure bu ma neex ma doog a jàngi sunu monsieur woo ma général la moo tax nga toog ba heure bi doog a jàngi si ma ne ko suñu ginaar bu doon yee moom la sam papa réere démb mu ne ma c'est mu ne ma aujourd'hui tous les élèves il faut essayer d'essayer un train passe par vite pour yéen ñi nga xam déggoo leen su français suñu mosee ne naa ko disee wat ñun ñëpp kenn ku nekk benn train boo xam day daw bu baax si biir kaye bi eh man sama xel c'est automatisme damaa ibbi sama kay jël sama bic noir rëdd ñaari rëdd bàyyi jël kere kere bu weex bi dëbb ko ba mu mokk sotti ko si kaye bi tëj kaye bi eh maa ngi élèves yi ñii di jël ay bâton di tracé ñii jël ay crayon di rëdd ñii di jël ay lan couleur loolu ñuy kël nu mu tudd waay ay waay crayon laay wax ay crayon couleur di rëdd daj si coono goo xam dama leen mujj yërëm sax barki yàlla e ba pare suñu monsieur day vérifier Ibou Touré posé nda may soppe posé ok DJ Mo posé Guy Ndiaye posé Nday Nos posé posé ey eh, ñëw ba si man ne ma général c'est fini ma ne ko wii mënuma ouvrir cahier eh damaa ibbi kay bi ëf kere bi poussière bi naaw mu ne ma général qu'est-ce que lii la la ma ko raay mu ne ma ana terrain ma ne ko romb na xanaa gunóor poussière bi waaw waaw waaw moom moo ma laaj terrain bu gaaw ma gisee ko bu mu ne ma eh eh eh mu daan ne mu daan ne énervé dem ñibbi xëy leen laan demee daan ne aujourd'hui porte deux questions pour vous <laughs> eh. mu ne première question bi quelle phrase commencé par T yaali yëkkati loxoom ne ko tamaate tontu na ma ne ko monsieur dama lay proposé am naa dix phrases yu commencé par T mu ne ma allergie générale ma ne ko taalibe tëb na teenu Cees tubay ba jeppeeku na tey ba tapal ko ko téeméer mu ne ma train B ma ne ko train B bi yaa ko moom mais tout à mi onze <laughs> ma xam ni eh da ngaa daan <laughs> eh! mu daane ne question quelle phrase commencée par F terminée par A nii la mu ne quelle phrase commencée par F daal laaj ba ama leeralal ko bay dimbal leen ko waaye xamul daa bëgg a xam xam-xam lay ut eh mu ne quelle phrase commencée par F terminée par A ñëpp ne tekk comme nii booy banlieusard du ragal rawatina ba dëkk sam-sam tëli sama loxo eh xam naa ñëpp mën la ñuy déglu ma daay dox deux pas jëm jardin pas dem cour yëpp ci aaral bi de daay ñëw devant les scènes jàkkaarloog suñu monsieur nekk répète des questions s'il vous plaît mun na ma général di man ko yaa ngi may tifli waxal naa ko rek dama léegi boo xamee dara te kenn xam ko da ngay waane faa ngoon ne yow rek yaa xam mun ma général di encore di quelle phrase commencée par F terminée par A ma ne ko fagadaga <laughs> mu ne ma qu'est-ce que ça veut dire que fagadaga ko pain d'orme hier ñun booy banlieusard yi buur bu fanaanee daga lan koy wax ah Ibou Touré waaw et eh, ma xam ni je intellectuel sama xam-xam nit ñi war nañ see jariñu ma bind livre 500 pages ma tuddee que le roi et son cheval buur bi ak fasam eh sama professeur woo ma ne ma liiral livre bi ma ne ko jamais de la vie France ñu ne ma une semaine da ngay dem France pour lire livre bi lu des si semaine bi kos laay sol fu may jëm élèves yi xool ma ne ma pour pourtant général boo solee kos yaa Macky Sall benn ngeen ma xëy dem palais eh exagéré tax damaa dem ba si garde rouge bi di ko présenté sama bopp daal di taxaw ne ko kal laay ndurool garde rouge bi xool ma ne ma ku rep ma ñibbi eh ban eggee France ban eggee France ah sa waay yow nii boo koy sëqatee léegi nga damm de nii nga sëqate eh ma daal egg France professeur yëpp daal di taxaw ñu daan may interdire ne ma général explique-nous qu'est-ce que ça fait écrire des livres yéen ñu déggul français laay dimbal de man lu ma wax naa ko mu ne pour ma wax ko man lan laa bind ci livre bi ma ne ko avec plaisir ma ne ko première page bi dama see bind le roi monte ton cheval buur bi yëg na ci kaw ma ne ko dernière page bi dama see bind le roi arrivé ton forêt buur bi dugg na si àll bi ma dem toog ñu ne ma non Gérard attends 500 pages nga wax deux pages nga li nga lim léegi 498 pages loo ci bind ma ne ko buur bu duggee jëm àll ba diggante ba la laafee benn lu fas bi di dawe kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga eh, eh, eh, toogaat leen fu ngeen jëm fu ngeen yéen lii laa gën a bañ sama àdduna ngeen yegg après war a laaj lan moo fi xewoon duñ leen ko nettali jeexagul ana kii anniversaire s'il vous plaît na ñëw yegg si gaaw na ñëw yegg si gaaw ayca ayca gaaw ñu ëppal ko liñ koy ëppal mu gaaw ayca mu gaaw mu gaaw ayca s'il vous plaît mu gaaw loolu waay ayca ayca s'il vous plaît ana kii anniversaire ayca di son ana gars yi kaay leen aja aja gars yi aja aja aja gars yi ñëw leen merci beaucoup Demba merci beaucoup le caméraman Demba merci beaucoup merci Alim Cissé merci beaucoup Ibou Dida merci beaucoup et merci à toute l'équipe de la TFM jërë ngeen jëf à tout le public ayca joyeux anniversaire à toi dundal ba say may ci baawaan ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire happy birthday ayca maman joyeux anniversaire dundal lu bare bare bare merci beaucoup à tout public merci à tout le monde yéen ñi nga xam ni da ngeen a indi woon lu ngeen ñu dimbalee bu leen ñu bi xaar leen ñu ci biti dinañ leen ko fekk ngeen jox ñu ko DJ Sow merci beaucoup. jërëjëf bye bye bye bye merci beaucoup merci